jullit yi génn ci atum 1439 dugg ci atum 1440 loolu lee soxna maam xari Mbàkke daal di koy ubbee ci bisub ñaan waaye tam bisub jàngale alxuraan moom doomi sëriñ Muxtala ji di fësal ne sëriñ Touba loolu lee ay mibitam la woon ca Touba daaru alimul xabir ñu daal di fay jàng ci lu toll ci lim alxuraan bu toll ci ñetti téeméeri kaamil ak fukk ak ñett daal di seddale dongo yi ay basang lu jëm ci ay satala waaye ay jumtukaay yoo xam ne nii na leen indil ca seeni biir daara rax ca dolli soxna maam xari Mbàkke di fësal ne inscrire na ci lu toll ci junniy dongo ci séem yi du couverture maladie universelle. fi lu mat ñeent fukki daara ak juróom ñu ñëw jàng fi lu toll si ñetti téeméeri kaamil ak fukk ak ñett jàng itam ñetti téeméeri Matlabul Fawzayni bi nga xam ne moom la Serigne Touba aaree dëkk bi di Touba ak fukk ak ñett ñu berndeel dongo yi yeewi Serigne daara yi génne ay don jox ko Serigne daara yi nga xam ne ñoo fi teew. inscrire lu mat euh, junniy donga ci li ñuy wax semi ah, jox leen ay basang yoo xam ne danaa ñu ko mën a lal tokki di jàng alxuraan joxe fi lu toll ci ceeb du toll si ay toni ceeb jox leen dëwlin ak suukar ak yeneen bagage yu nga xam ne daal dañ ko yëkkati jagleel ko daara yi nga xam ne ñoo nekk si biir Touba. bis bi nag li ko waral lu yomba wax la ndax ku nekk xam na ne dëkk bii di Touba Serigne Touba daf ko sañcee jàng alxuraan walbati ko aaree ko alxuraan waxoon itam ne suñ borom jox na ko alxuraanul karim walbati ko waxoon euh, sunu bàjjen soxna May Kabir ne ko na ngeen xam ne alxuraan mooy seen sàllu cosaan. lu ngeen bëgg nangeen ngeen ko sàkku ci alxuraan lu ngeen dàqit na ngeen ko na ngeen ñaan ci barkeb alxuraan suñu borom lu ngeen ragal na ngeen ñaan ci barkeb alxuraan suñu borom dàqal leen ko ci njeexitalu kàddoom soxna am xari Mbàkke di fësal ne lii ay jéego la ngir ubbi at mu bees mi ci jàmm ak salaam waaye itam suñu borom indi ndoxum jàmm ci dëkk yi nga xam ne ni nemmeekuñu fa taw yu bëri waaye tam li nga xam ne moom la ñu ma di ay élection suñu borom daal ciy def jàmm bu baax a baax ci réew bu Sénégal jàmm ci réew mi def ci ak dal ndax xam nañ ne alxuraan ji ñu fi wàccee tey xale yi jàng ko lépp xaj te ñun bu ñu bëggee dara ci Touba dañuy dellu ci alxuraanu karim dàkk fa bëggug Serigne Touba bi ñu demee ci Serigne Touba Serigne Mountakha di jëli ndigal daf ñoo wax nañu ñu ngeen di wut yàlla leen ci Serigne Touba gàttal mooy ñaan bu dal suñu xel kon daal tey suñu xel dal na rafet nañ jortu ne li ñu doon dàkk bëggub sëriñ bi gis ñaan sëñ bi li ñu bëgg ci dëkk bi mu defal ñu ko rafet nañ jortu ak kilifa yu baax yi nga xam ne ñoo ko teewee rafet nañ jortu bu baax que ne liñ bëggoon suñu borom danañu ko defal ci barkeb Alxuraanul Kariim